لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم <coughs> ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفقه القول الحمد لله رب العالمين ndax ñaanu non yàlla jalla jalaaluhu toogaat fi ak yéen jotaay si seen émission wadduha si si wala fm 98 point 0 borom bi may nu toog ak yéen jotaay tey di 11 mai 2014 noonu lan koy ñaanee commencé émission bi si bismillahi rahmaani rahim àggale ko si alhamdulilahi rabil alamin di ñaan yàlla lépp jaar fa mu daan jaar yàlla mu sënnu si ayu làmmiñ fa tabarakalaa di nuyu tey siyaara kilifay dina yépp fa tabarakalaa di leen ñaanal yàlla yàlla yokk wéral seeni cër yàlla yokk guddal seen fan di ñaanalit ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi yàlla kàttanal leen ba fa nu bëgg yóbbu réew mi sa ay xéewal nu matal ko di jéggalu bu baax nag ndax am na ñaari dimanche yoo xam ne amu leen seen émission Wadduha nu nekkoon si tukki di ndokkeel ñëpp it di leen sant di leen gërëm si nemmeeku bi nga xam ne ko doon nemmiku bi ñu ne dafa am mbokk boo xam ne dafa wàññiku fa tabaarakala ñoom ñëpp it nu ngi leen ndokkeel si loolu nu ngi leen si jaajëfal di wax pour ñi ko xamaloon ñëpp ne dellusi si nañ si daara ji si kàttanu borom bi fa tabaarakallaa lépp mu ngi doon mu ngi continuer kam na mu daan demee tey nag xam naa kàddu di may xaw a jafe tuuti nax yàlla dafa dogal si dogalam ma war a am ak jotaay koo xam ne kilifa la fa tabaarakallaa koo xam ne bii way jur la si man koo xam ne soppe la si man koo xam ne jànge naam si lu bare bari fa tabarakallah si rajo muy ku yàlla baaxee fa tabarakallah ku yagga defar tamit maa ngi ko ko doon wax léegi rek ne njàngaleem su ko sénégalais yépp doon déglu te te te koy jëfandikoo am na problème yu bare bare bare yooyu xew si diggante nit ak waay juram wala jëkkër ak soxnaam wala liggéeykat ak njaatigeem yooyu yépp sunu doon déglu tey jëfee kilifa gi nu dalal tey yàlla dina gën a defar lépp yàlla yit may nu émission waxaan nu bari ay soppe macha allah doon tamit xaritu ñu bëree bari si ay njaboot nu nuy ñaax yenn saa yi nuy waxtaan si njaboot moo xam di waxtaan it si kër te ni ma ko doon waxee léegi rek xam-xam bi néew si domaine yooyu lool. moo tax nu sàkk mu ñëw fii si émission Wadduha wettali konteen tey ak sunuy auditeur foog naa su kàddu jibee rek ñëpp danañ xam li may bëgg a wax ne jikko yi dafa jara defaraat fa tabarakallah surtout si ndaw ñi mooy tax mu nu koy sant bu baax nag di koy sant bu baax te di koy ñaanal yàlla ndax euh, wax na ma ko ba ma ko woo ko waxee mu ne loolu musuma ko def waaye dinaa la ko nangul loolu may ñaan tamit képp koo xam ne soppey Wadduha nga nga ñaanalal ma ko fa tabarakallah yàlla yokk wéral ay cëram yàlla yokk guddal fanam nu koy sant bu baax si cër boobu nga xam ne bi jox nañu ko te nuy lu ñàkk solo si kanamam eh, di am mbégte lool tamit ni ma koy waxee kàddoom jib fii si émission Wadduha ndax day nekk eh, mbégte fa tabarakallah maa ngi ko doon wax léegi nekk lu jege ñaar fukki at néew na waxtaan boo xam ne yaa ngi koy wax te dégluwuma ko fa tabarak mbokk boobu mooy Serigne Pape Joxaane nu gën koo xam ñu bari gën koy miine si inspecteur Joxaane kon xam naa tey moom ñëw na si këram ñëw na si émission fa tabarak la dañuy fob lépp rek jébbal ko ko nekk surgaam te am yaakaar lool si ne tey képp kuy njaboot soo ko teewloo dana am lu bëree bëree bari loo xam ne dina ko laaye biire njaboot gi dana ko laaye biire jamonoog tolluwaayam dana ko laaye biire ndaw ñi surtout kon mbokk boobu lan invité tey muy Serigne Pape Diokhané xam naa dana koy bàyyi mu nuyoo bu nuyoo ba pare rek nu dugg si waxtaan bi te mooy jamono léegi macha allah àndi ànd di tàggoo yi bëri na eh, yàqalante bi bëri na. du mooyu ñoo xam ne bii macha allah noo war na nekk sa lépp it bëri na yooyu yëpp fa tabarakala roy gu ëpp rek ak ñàkk defaru moo si ëpp loolu moo tax fa tabarakala nu yéene tey mu wettal nu si émission Wadduha su ko defee suñ demee ba ay minute ngeen mën na bokk ñun émission bi si 88 628 32 32. kon papa eh, asalaamaaleykum assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu di nuyu mbokk yi waaye balay loolu ma bekk lol ci dalal gi bekk ci presentation bi muy wax ju teey ju and ak jar ak teggin and ak kilifteen ñi ma fekk ci keet gi ñooy xele yu yu yaru ba tax na sama yaram ñeme wallaay ndeysaan jërëjëf. am na nu mu doon demee. Mm-hmm. mu doy waar. wallaahi wallaahi ndeysaan. waaye yow mi nga xam ne yaa jiite émission bi. Mm-hmm. yar bi ak teggin yi ci la jëkke jërëjëf joxaane kon ma gërëm la ci loolu sant la ci. jërëjëf joxaane ak dalal gii nga xam ne ma ko dalal. Mm-hmm. ma bég ci. xamal la ne waxtu guddi de. kenn mësuma koo dalal duma ko nangu. wallaahi ndeysaan wallaahi. waaye yow nag. dama la koy may. wallaay jërëjëf ndax dawaa bi dañuy wax ne règle bu ne am na exception. loo mën a ñàkk a ñàkk a def nangam. bu diw dikkee rek nga def ko. wallaahi wallaahi kooku cër la bu rëy. jërëjëf joxaane. jotut nag cër bi nga ma jox jotu ko. waaye danañu góorgóor suñu kem kattan. fexe ba li tax nga woonu fi. lu ñaan yàlla. mu kàttanalu ndax mooy maye. incha allah jàppale nu ci waxtaane ba. auditeurs yëpp beeg. jërëjëf joxaane jërëjëf barakallah barakallah kon xam naa na ma la ko waxee rek jamono. tolluwaayu jamono lan ngay mën a ñaaxee surtout tàmbalee ko si ndaw yi seen nekkaay ak seen i diggante ak seen i wayjur yooyu lan bëgg fa tabarakala nu ubbee ko door ñëw it si nekk si kër yi mm. te mooy sey léegi sëriñ joxaane da ngay dégg lu bëree bëri nu naan nangami weer yu néew rek nangami junni sey ah, tas nan si lu nu xam mm-hmm. yooyu yépp te baasu sëy war a nekk ma mawadda ak rahma yàqu-yàqu yooyu fa tabarakalaa moom lan bëggoon nga am loo si laaxe biire mbokk yi loolu jërëjëf sang bi loolu dëgg la waaye li ko indi nag xale yi bëgg nañoo xam dañoo gisul ku leen xamal bëgg nañoo yaru yaru neex na leen waaye gisuñu ku leen yar yar mi ngi tàmbalee ci góor ki buy bëgg soxna day dem ci jigéen joo xam ne am na kilifa. Mm-hmm. te xaalisub kenn newu ca foq ci ko ci loxol kenn. Mm-hmm. ëppul kenn doole pour jël ko. Mm-hmm. mu jaar ko ci yoon wu lew. ñu jox ko ko. yarab doom foofu lay tàmbalee. yar bañ ko yare ak yar la ko ba nga jaar noonu. bu ndaw si ñëwee ci kër gi. bu leen yàlla joxee njaboot. njaboot gi foofu lay jaar. yar boobu lay am foofu lañuy ñuy commencé. yar sa doom. est am na solo. dañu ne xele dañ koy xelal. Mm-hmm, mm-hmm. buñ ko xelalee muy gune bu demee ba doon gune mën naa doon kune. Mm-hmm, gune kune. waaw xele dañ koy xelal. bu ko defee mën naa doon kune. moo tax ñu naan gune. Euh, ñu ne mag day digle. waaye ndaw day déglu. <laughs> waaye bopp buy am barke. nopp buy dégg moo cay sax. boo yoree sa butéel def cim ndox. ndoxum kese dara newu ci mm-hmm. na nga bëgg ndox ma mel na mm-hmm. sunguf su mel noonee ngay def ca ndox ma da di yëngal wallaay lu wér lu wér sax bu xonqee day xonq <laughs> bu weexee day weex bu ñuulee mu ñuul wallaay wallaay wallaay loolu mm-hmm. noonu la demee xale bi ñuy yarit dañ koy teg ci aw yoon mu màggee ci kër gi bañ bu ëllëgee naan kër diw laa yaroo te fekk yaroowu fa dafa màggee ndax yaroo kër sëñ diw ak màgg kër sëñ diw bokkut. est-ce que. Mm-hmm. bi nga yaroo ci kër gi. Mm-hmm. sa wëy jur da lay teg loo xam ne di la sant loo xam ne neexut sa bakkan. Mm-hmm. te mu wéyal loola. la tere lépp lu neex sa bakkan. te wéyal boo demee ba màgg ca. di nga wuuteeg ku ñu yoran te kenn yaru ko woon. yor ak yar bokkuñu. dëgg la dëgg la yor ak yar. waaw. ki ñu yar dañ koy digal lu naqari bakkanam te wéyal ko. di ko tere lu neex bakkanam te wéyal ko. ki nga xam dañ koo yor te yaruñu ko. Mm-hmm. duñ ko digal dara lu naqari ba kanam. Mm-hmm. duñ ko tere dara lu neex ba kanam. Mm-hmm. ñoom ñaar kañ lañ leen di xàmmee bu ñu demee ba. ki ñu yaran. bu demee ba gisatul ki ko doon yar. yar bàyyi taxaw ci kanamam di ko kondir. di ko wommat di ko indil ay yiw. di ko fegal ay musiba. di ko jubaleeg nit ñi. yar ba moo tax. ki ñu yaroon te yaruñu ko mm-hmm. ñàkk a yar ga mooy dox ci kanamam mm-hmm. di ko toroxal mm-hmm. lu mu wut mu xañ ko ko lu mu mën a doon du ab du baax mbooloo mu moonte duñ ko bëgg dañ koy bañ boo demee ci benn téere bu ñoo sayru xulóob Seex Sidi Hajji Maalik Si radiyallaahu taala anhu moo ko liggéey téeméeri way la ak ñaar fukki way ma ngay wax ca ca kii ba naan ca bun ca biir téere ba naan jëliisu malikin lam a mutaaddiban Mhm. taridun zalilun mhm. saaxirun wa ajib est-ce que nit ku mhm. yaruwul bu toogee ak ay kilifa la mu bëgg du ko am du egg ca kilifa ga du ko gis bu baj bajee jox ko dara jaay gune te dañ koy toroxal wallaay wallaay wallaay yent ndoom yëpp dañ koy xañ ngan gi noppi itam dama la ne gune gu yaru moo koy dégg gune gu yaree diku moo koy dégg waaye gune gu yaru du dégg mukk ngan gi nopp kon bu xele bi jaaree fii dana baax ci kër gi Mm-hmm. baax ci mbedd mi mm-hmm. baax ci école ba mm-hmm. fu mu mën a dem ba mu njàngam pare bu amee la mu bëgg ci njàng bu ko amul ñu doo dugal ko métier toujours yar baa ngay continuer wallaay wallaay kon dana mën a représenter ay waajuram fu ne fu mu mën a demit soxla am dana faju kon nii la ñuy yare xele waaye xele dee su ko dóor dee su ko xas dee su ko saaga lool du yar te jigéen ñi léegi ñii dóor ak xas ak saaga ak xët ak nangamtaan wi moo tax xele yi xele seen bàyyi la ñuy faral. dëgg la dañuy faral seen day dëgg la dëgg la saaga rek la. Mm-hmm. ne fu xolam du sedd fa def. dëgg la wallaay wallaay mooy départ wallaay am na solo mm-hmm. macha allah am na solo. Mm-hmm. am na solo ni ma koy déggee si yow rek amab yaray tax. ñu xëy jël nit na tegg ca kaw <laughs> ñàkkub yare yi tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw lu tax mu ne ab yar la ñuy waaje mhm. loo jag-jag te yow yaruwoo mhm. bukkee la gën fuuf te loo rëy rëy ku bon nga ko sew wallaay wallaay kon ki waajab yarey sangu mhm. ki waajey si rek alal lu des xaw di jàmmas lëf ki nit dara yar bu des ñu ne sëñ bay jaxate kon nu ñuy jubóog nit bu ma sëkk ànd ak dëgg moo ma ta yor wallaay wallaay yii yaareef ku ko yor foo dem jubóog ña fa ne wallaay macha allah waaw noonu sëñ bay <laughs> yàlla na ko yàlla defal ñëpp yàlla na ko ndaw ñi déglu waajur it macha allah yàlla na nu ko déglu gën a passif lool dina koy wax mhm. lu bëree bëree bëri si ne eh, alal mhm. alal ba gën mooy njaboot mhm. macha allah ku ko yàlla may lépp loo man si nu jub si nu mel na yàlla gërëm dinaa su màggee dana la noppal te loolu la ku nekk di ñaan soo leen jiitoo fa laa dina mën di lay yónnee àddiya loola nag la koy may nit mooy comme nii ngay waxee rek yar yar yar bot commencé si hmm. ba nga koy tànnal way jur waaw kay ya. hmm. su ne nit ku la nga wax rek butéel bu nekk waaw la nga sa sotti butéel bu ne <laughs> boo ci defee ndox ba mu mhm. ni nga bëgg butéel bi mel ni wutal sunguf suna mel mhm. nga yëngal dëgg la dëgg la dëgg la ndax gune googu ñuy def mhm. ngir ko yaari at yu gune am bi mu juddoo ba muy am juróom yaari at ku ko fi tee doon buur moom dana dajeeg buur. Mm-hmm. ku ko tee doon buur ku ko tee doon buur. Uh-huh. dana dajeeg buur. wallaay. bu <laughs> ci tegee juróom-yaari at muy fukki at ak yent mm-hmm. boo ko defee buur yow di nga dajeeg buur yow wajur wi. <laughs> est-ce que. yeneen juróom-yaari at muy yetteel. Mm-hmm. di ñaar fukki at ak benn. moom mu defee boppam buur day dajeek buur moom. yow kay xanaa da ngay wallu waaye soo yoon nekkatu ci. est-ce yooyu. Mhm. mooy xele. Mhm, mhm, juróom-ñaari at yu njëkk yi. ku ko tee doon buur dajeeg buur. juróom-ñaari at yi ci topp. muy 14 ans. ku ko def buur. dajeeg buur juróom-ñaari at yi ci topp muy ñaar fukk ak benn. moom bu defee boppam buur. léegi nag day dajeeg buur. dégg la am na solo macha allah. jàngale bu rëy rëy rëy la. si ne nit dana àgg foo xam ne bi lépp lu mu def rek. mooy responsabilité bi. waaye dina am foo xam ne ay way juróom. nooy responsabilité am si lépp. dëgg la macha allah papa jàngale boobu am na solo. xam naa. dan bu amee loo mën a laaye biire mhm. ne kër yi waaw surtout mbiru sëy yi léegi eh, ni ngay déggee léegi ànd na leneen am na dafa bari léegi lool sëñ mhm. joxaane dëgg la ba xam eh, ñi daan yor mhm. noo yoratul wala ñi nu daan yor noo nangootul ku leen yor ba xam lan nga si laaye biire mbokk yi waaw loolu li ko def mooy eh, way jur yi amee njaboot yi dañoo wax ci tubaab bi ne. Mhm. gune. Mhm. ndaw mooy yaakaari ëllëg. Mhm, lu wér lu jeunesse espoir du monde. léegi ginnaaw xale yi la yaakaar ak mooy xale yi mooy góor yi jigéen ñi. mu ñu leen yarut. formé wu ñu leen. teguñu leen ci yoon. kon naka pexe ëllëg. wallaay wallaay doy waar rek. du baax. kon dañu leen di ji. wala ñi ñi paase ji ñu jëmbat leen. mu ñu leen jëmbatee di leen suuxat. suuxat mooy yar ak teggin. dëgg la damay wax nag ne kër fekk kër a ngi am. Mhm. jabar dafa wàcc. Mhm. maanaam dafa sëy si. Mhm. te xale yi xamuñu wàcc. aywa doom di fa juddu. waxe kër du jeex. dëgg la lu wér a wér tànk ngi dox rek. jabar dafa wàcc doom di fa juddu. kër du jeex. kon nag. mag ñi nga xam ne ñoo yor kër yi. góor ñi nga xam ñooy responsable kër yi. jigéen ñi nga xam ne ak xale dañu leen a yilif. kër goo taxaw léegi doo fa gis tuug doo ko doo ko dégg. Mm-hmm. tuug dañu daan wax naan tuug bu sa baay ñëwee nga dee de <laughs> tuug bu sa papa waaw léegi amatu. wallaay wallaay. lu tax mm-hmm. mooy ki ko war a wax. Mm-hmm. ñimeetu koo wax. wala bu ko waxee soxna si dal ci kawam. ne ko moom ñëpp a yem bàyyil xele yi yaa ngi bon yow boo dikkee rek xele du ñu am jàmm. bu dee góor gu day waar. day daal di aw fa ko jabar ji awloo. kooku mooy ñi nga xam ne bu ñu amee jabar. dañuy boole faj soxla ak doxi yónneent. est bu ko góor defee. Mm-hmm. Mm-hmm. day sonn. dëgg la dëgg la léegi. Mm-hmm. jigéen ñi xamuñu ne. bàyyi yiy jubbanti doom yi. ñoom la ñuy dimbali. lu wér doom bu màggee ba am njariñ. dana jar dana jariñ bàyyi de. waaye ndey lay jëkk a jariñ. wallaay wallaay gën a jariñ wallaay wallaay. te ndey mënta yar. kon ndey du bàyyi bàyyi yar yar doom jii. ndey du bàyyi bàyyi formel ko ko. teg ko ci aw yoon. ba mu yegg ca dëkk ba. bu ko defee ndey noppalu. Mhm. boo ko defulee. Mhm. sa doom ëllëg ginnaaw baay bi du nga mu yar ko. Mhm. njàngam du baax. bu demee ca école ba. monsieur ba du du du day sonn. léegi nag kat gayaar daan am ci école. tànn xele bi jël ko kii jàpp fii kii jàpp fii ñu jël ab yar di ko dóor ci ginnaawam. ak ci toogukaay bi. ba nga xam ne li ñu ko sant dana ko def li li ñu koy tere dana ko ragal bu ëllëgee. léegi amatul. ndax ginnaaw koo dóor doom. mu yóbbu la police. wala mu wax la lu bon. waaye léegi monsieur bi itam daa am responsable la dafa am doom <laughs> am ndey am baay. nekk responsable droit de l'enfant enfant. waaw droit de l' enfant dama leen ne. <laughs> bala ngay def droit de l' enfant. Mhm. da ngay jàngal xel bi devoir de l' enfant. Mhm. parce que dañu ne les devoirs avant les droits. Mhm. kon nag boo nee droit de la femme. ne droit de l' enfant. te devoir amul. kon nag léegi aji àddina day tukki. dëgg la dëgg la ndax laa kenn du la kenn amatul kilifa. boo amul kilifa nag. jinne mooy sa kilifa. wallaay wallaay te kilifaay lépp. te kilifa mooy lépp sëñ bay jaxate loolu la wax. Mm-hmm. kilifa daa la am solo. Mm-hmm. boo ko amee am nga solo. Mm-hmm. boo ko amul amoo solo. ku wéeru wut yomb ba max lu wéer kon nañu yar xele yi. bàyyi leen yéen jigéen ñi. bàyyi ñor seen i doom. da doonte ndey ku toll ci doom la ndey mooy école bi jëkk ma mhm. école bi jëkk nag bu mhm. deful la ko war mhm. njàng ma du baax de wallaay lu wér ah? lu wér kon nag nañu yar xale yi bàyyi yar xale yi ngeen jàppale leen bu fi bàyyi bi ne mooy yar xale yi bu génnee wan gannaaw liggéeyi yow mi fi des yaa yar xale yi waaye léegi nag jigéen ñi amatuñu googu jot mbindaan mi la ñuy jox xele bi est-ce que xele bi xam nga mbindaan mi xam nga luy garayam ndax xam nga luy fàllayam ndax xam nga nuñ ko yare ndax xam nga mooy kan ndax xam nga jikkoom doy na la wala baax na am déet wallaay nga jox ko sa doom léegi mm-hmm. jël biberon jox ko mm-hmm. te biberon saa bu ko xel a nampee mm-hmm. bon dana ñàkk jom lu tax mooy. lu tax lu tax la nga nàmp ngay tax. waaw jeex na ndax bu la nit juree. <laughs> Eh, eh, eh. di nga am jëmmi nit ak noppi nit ak lépp nit. Mm-hmm. waaye bu dee bàyyi ma moo la nàmpal. Mm-hmm. xelam bàyyi ma ngay am. Mm-hmm. di nga am jëmmi nit ndax nit a la jur. waaye nag meen meen dafa am solo. dëgg la te li nga nàmp ngay tokkamteku. te meew yi ñuy def yi ci ëpp. mooy nag ak xar. Mhm. ñooy mhm. da rab mooy bàyyi ma yi gën a dof. Mhm. gën a ñàkkam xel xam nga boo ci nàmpee lu lay yomba. précoce da gaaw a rëy rek di nga doon ponkal. waaye boo jàngee du dem boo jàngee sam njàng du baax. doo am ab yar. doo am xelam nit. da ngay seet. jigéen day toog ci buntu kër. yor ceebam di tànn. dugg ci waañam ba ci bàyyi fi ceeb bi xar mi ñëw lekk mu dóor mu daw bu <laughs> dikkaatee demaat xar mi dikkaat mu dóor. loolu jom fekkewu ko. déedéet déedéet déedéet. loolu jom newu fa. <laughs> wallaay wallaay kon ki nàmp kooku. Mm-hmm, mm-hmm. faaw mu ñàkk jom. ku nekk mm-hmm. léegi. boo ko jamee mu bënn. boo ko dàqee mu daw. boo ko dóoree mu mu boo ko tëkkoo mu tiit. boo ko dooree mu dam. seen yax fa funux. baaxatul. amatuñu lu ñuy rus. te it li tubaab di wax sadisme. koo ci gis ñaari day sadik. Mm-hmm. attan nañu laa jàmpaaka mm-hmm. attan laa rey mm-hmm. attan laa door moo waral yi nga gis agresseur yi nga gis ak rey nit ak def na ko nangam mais bu yàggul amutan kenn mosu koo ñime wallaay ah? wallaay wallaay am na ñoo xam ne rey ganaar wuñu ko dëgg la am ñoo xam ne bu ñu gisee ab ak taab duñ ko bënn mais loolu lépp jeex na léegi mais léegi xale yi ñooy def loolu mais mag ñi ñoo leen ci ba mag ñi ñoo leen seetaan ndax boo demee di liggéey yow ndaw si ba sa doom ak mbindaan mi jox bi borom muy nàmp boobu amatul yar amatul kaaraange. Mhm, mhm, mhm. amatul la maamam doon naan. dëgg la dëgg la amatu ko. ndax ndono. dafa am solo. dëgg yar nag am solo. ba waa ji ne morom ma. yar a gën a foor ndono. mu ne ko déedéet. gën foor de. mu ne ko dafa am solo mu ne ko d'accord na yow de. waaye ndono dafa loo doon mu dëgër de. dëgg la. werante ba gën a bëgg waa ji ne ko. ki nga xam ne moo ne yar a gën a wóor. ne ko invité naa la samedi. ndeke fi bu ko teg mooy. yor na muus ca këram. yar ko ba mu yaru. Mm-hmm. bi gan gi ñëwee. ñu mm-hmm. teg ndawal li. Mm-hmm. mu woo muus bi mu ñëw. Euh, jéggi niital leen ci làmp bi. dellu feeñi jox ko bu reeram mu reer ba rek. Ah, mi yaru na de <laughs> lii de wax dëgg yàlla na. Uh-huh. waaye samedi. na nga ñëw sama kër tay na maa yar muus. Uh-huh. indaaleel sa muus mii nga yaral sa bopp. Uh-huh. bañ ñëwee xarfan bi arfin. ñu def nañu defoon ci yàpp yeeg lépp. mu ne ko jox ko mu ne ko reer na mu ne ko na mu ne ko na. ndekete waa ngonkum jinax. la dëpp ci ak leget bi jinax ji muus mi lekkee ci yàpp bu suur ba bëggatul dara waa ji ne kul bét duppi leget gi jinax gi ne bërit muus ma sànni làmp ba daw dàq ko ne mm. mu ne waaw ndax dafa xëy mu ne déedéet mu ne ko sa diit ak ndono ka moo jóg mu ne ko jaay nga jaay nga ma wallaay wallaay donc ndono mooy meen mm-hmm. géñoo dafa am meen am mm-hmm. kon ki nga xam ne kii ko nàmpal mm-hmm. mooy bàyyi ma yii di xar ak nag ñii lay doon dëgg la dëgg la bu ñuy daane. Mm-hmm. ak di màtte mm-hmm. ak lu mu mën a doon dañ koy def. Mm-hmm. télé boo gis tey muy ponkal. fekk boo amul njariñ dafa aw xutux la. wallaay wallaay amuñu aw fit. seen dër seen dër dëgërut. amuñu leen. te nit ñu baax a leen jur. waaye boo juree ba noppi doon ko baax te yaroo sa doom. toppatoo woo ko mais du baax. wallaay wallaay mu mel ni gàncax koo jëmal rek. Mm-hmm. te doo ko suuxat. Mm-hmm. Mm-hmm. allah am na solo am na solo am na solo. am maa solo maajur yi danañ kontaan tey macha allah. si laay biire bu am solo boobu. si njaboot kon xel daal dañ koy. waaw dañ koy xelal koy waxee rek waaw. xel dañ koy xelal. boo ko xelalee. ba li nga yaakaar na xel na dugg la ci moom. bu fekkee euh, bu demee màgg ñu di ko wax gune. gune ak xel bokkut. gune moom mën naa doon ku waaye boo ko formé. ci lu mhm. baax day doon ku baax ku ne. Mhm. boo ko formé sàggane ko mu mhm. doon ku bon ku ne. bu boobaa nag. ah ñu daal di ne ah doomi diw ji kat nangam. fekk diw moomu. formé wutan doomam. ndey ji itam na xam ne. bis boo xamee ne mi ngeeg boroom këram. yàlla jox ko ko mu ñëw ci biir kër gi. respecté wut boroom këram. nungulu ko. ndax dañuy wax ndey ju liggéey ngir gi nit ñi xam ko. Mhm. waaye ndey ju nungu moo am. dëgg la dëgg la liggéey xanaa xamu ndey ju liggéey moo ndey ju nungu moo am. Mhm. ndey ju liggéey naaw liggéey lañ gën a xam. Mhm. waaye yow xam nga ne kër. fo mbir daan amul. bu fa jigéen nekkee faaw mu liggéey. wallaay liggéey na dëgg la dëgg la bu doom ji baaxul nungu ko moo des. dëgg la dëgg la. jigéen dañ ko ma ne ko may ma ca ndaalee rek. balaa dem nga yàkkamti ko. bu dikkee bu lay jox ndox mi. dana tuuru ci sa kaw. bu bët setee bu lay jox ndekki bu nee kaas bi muru mi day daanu Mm-hmm. respecté wul mm-hmm. jëkkëram mm-hmm. yarawul fa mu jógee bu ko defee kii bu séyee nii ak waa ji bu demee ba doom ja war a tekki dara du tekki dara ndax jigéen day déggal jëkkëram jigéen day jaamu jëkkëram boo ko waxee ñu ne jaamu kenn du ko def nit loolu ñi gàtt àll wa ñoo koy def Mhm. waaye jaamu des na ko def nit dëgg la ndax façon bi ñuy jaamoo yàlla nga xam ko mhm. ñu baax ñëpp xam ko mhm. kenn du ko jaamoo nit déedéet déedéet ah loxo yeeg tànk yeeg jëb yeeg nangam nangam ak yeneen ak yeneen ak ya ca aju yëpp te xaw ma ko xam nga ne loolu nit du ko yenn fa leen wallaay wallaay yow da ngay am sa doomi bàjjan ñu daal di ko muy am ngénte wala céet ñu wax la ko nga téla dem ci fajar mhm. bu dee jigen dina taxani mhm. wala mu jënd kërign mhm. wala mu roti bu goor di kédé tak ndigam di di la ci ndab ya di yóbbu ci gan ta man na am mom man na jënd wa kër gi dafa fonk dëgg la dëgg di jaamu lu mu def ne damay jaamu bu jaamu lu muy def moy day jéem def lu neex <laughs> sangam que dañ ko abbé ci jaamu yalla ci lañ ko abbé photocopie la Mm-hmm. waaye bu ñu ko wax nga ñaaw ak dégg. Mm-hmm. naan jigéen jëkk jigéen du jaamu jëkkëram ah yàlla la ñuy jaamu loola nekkul. droit de la femme da sama voilà <laughs> ko defee ndaw si. Mm-hmm. am liberté totale ci côté boobu. du jaamu du du toppatoo jëkkëram. du ko jaamu du ko yëg. di nga jigéen. téere dañuy wax ne fa kullu man lam yurdi shay'ahu fala yanaalu fii talmiisihi maa amala. lii ma nga ca nëyu. sëñ Tuubaa ko wax. nee na képp koo xam ne. sa sëriñ gërëmu la. sëriñ ci jigéen mooy jëkkëram. sëriñ ci apprenti mooy patron ba sëriñ ci kër mooy borom kër ga mu ne ku sa sëriñ gërëmut doo am la nga bëgg ca la ngay mébét wallaay wallaay ndaw si danaan boo amee doom dina mel nangam yàlla mel nangam <laughs> mais dafay fekk mu déggal jëkkëram bu waxee mu noppi bu yëkkatee mu wax ndànk mm-hmm. ni ñu waxan ci mm-hmm. yonent ba ne sahaaba ya mm-hmm. bu leen seen baat yi bu mu ko weete baatu yonent bi ñi nga loolee ba léegi mi ngi dox ci ko xam te ko toppatoo waaye bu sa jëkkër waxee nga ne ko eh, waa diggante nga de xam nga ma de te ay gantoo ah <laughs> yemale jëkkër ji di di ko di ko di ko di ko ñàkkal fayda sa doom kañ lay am fayda munta ne bu ëllëgee ah. yambar ngay jur wala ko ne ci buntu kër gi loxo beeg tànk bi ànd bu yuut ku ñëw mu waree di mu ne ah, leen joga joga jigéen mooy def loolu bu góorgóorloo ndax ñaar bu ñu bokkee liggéey te bu bonee nga ne ñu ne kenn ki la kenn ki war naa góorgóorlu wallaay lu wér a wér naam góor itam war naa yërëm jëkkëram jab jabaram Mhm. war na koo mhm. uuf mhm. war na ko aar war na koo dimbali ndax doolee jigéen lagg na waaye bëreewut dëgg la jigéen na ween ma sëgge la xel ma sëgge donte am na jigéen ñoo xam ne bëgguñu koo dégg am na jigéen ñoo xam ne bu ñu bu ñu xëyee bu ñu sañoon <laughs> xëyi soon tubay góor bu <laughs> ñu doon géej gee ca yaraax bu ca ku ca dem jigéen ci ca dem di doon góor <laughs> am jigéen ñu bari ñu barag bëgg bu doon bët bi sa ñu doon góor te yàlla arrijaalun xawaamuuna ala nisaa te lii dañ koo weddi dëgg la dëgg la mhm. tubaab bi ñëw ne leen mhm. yàlla dafa dafa mel ne leen yàlla dafa juum mhm. ndax yéen a war a jiitu yéen a a a am cër barab dana war a def nii kontarun leen de jigéen ku baax la de mooy sunu ndey ñooy sunu bàjjen ñooy sunu lépp waaye cër bi yàlla jox dañoo dem ba doy lootuñu ko ñu bëgg cër bu gan cër ba ka ndax bi lislaam dikkee ni mu fekkan jigéen baaxutoon lislaam ko organisé defaraat ko yërëm yërëm leen uuf leen mhm. ah mhm. Mhm. léegi nag lislaam defal la lii booye laak nitig lislaam ne mooy sa kilifa na nga ko topp bu baax bu la gërëmee nga toppatoo sa jaamu yàlla bu baax sa jëkkër gërëm la àjjana nga jëm wallaay de léegi nag loolu fekk wekki nañu ko lépp lu fi maam aada cosaan bàyyi woon bi maam tubaab dikkee da koo falet sànni ca àll ba mboolem góor ñi woyof bopp ñëpp ñu nga ànd ak yëfi tubaab yi la def ah, euh, jikko yu gan Mm-hmm. léegi xol yi yàqu nañu mm-hmm. jikko yi yàqu nañu mm-hmm. xol yi xat nañu dégg nga kenn ku ne bëggoo sa mbokk ñii xamuñu seen mbokk xele boo ci ne kii kuy sa nijaay sa nijaay ku ko jur xamu ko dëgg la boo ko nee tubaab ba ca France <laughs> film yii xele yi jàngul tubaab dañu koy seetaan xele bu déggul tubaab dana naan kii mooy jëkkëram eh. kii mooy fara kii moo ko yoroon dañoo tàggoo woon te tubaab lañ koy làkk te jànguñu tubaab Mm-hmm. góor góorlu gi ñu def ba xam loolu mm-hmm. ak seen yaay bu ñu ko defan xam seen maam xam seen cosaan xam seen lépp waaye léegi dama la ne mm-hmm. te fàtteloo nañu leen seen cosaan seen cosaani réew te dëkk dafay am cosaan am aada cosaan nag mooy wolof aada baatu euh, arab la li ni gën naan naan caada amul ci wolof ba mu jeex caada amul caada aada moo am mooy cosaan cosaan la tudd ci wolof Mm-hmm. mooy loo xam da nga fee fekk mm-hmm. mag ñi ne la cosaan day mm-hmm. aada de bu bi jaawee ba ko fa ah daf kon xamal na yàgg na fa yàgg na fa aada bu bi jaawee ba ko fa wallaay wallaay lislaam it bi mu dikkee fi la bàyyi aada yenn yi nee la jëpp aada jurut wàññi ci sa lislaam dara man lislaam jooja aada ba ñu ma ko lépp la yàq sa diire nag lislaam du ko nangu mu mel ni tey euh, sa doomi baay ji nga bokkal baay wala sa xarit benn bakkan mm-hmm. Mm-hmm. mu war a samp kër nga ànd ak moom mm-hmm. ku ne sampal moroom ma kër ànd takkalante ay jabar kenn ca jabar ya fay nga lijjanti lijjanti lijjanti doxut ba yàlla atte mu tas ay misaal laay joxe. ndax dañuy jàngale aywa léegi ndaw soosee bu tasee ba liibar ba idaam mat Mm-hmm. yow de araamu la dagal na la. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye sa aara nu mu nga takk ko boo ko takkee moo du <laughs> moo ko tas. moo da ko doon doxaan ndeke tey. xoolal kii ni ko kii yónni ca kii ba te ñoo àndal. ndeke moomu ki takk ko da ko doon doxaan. dëgg la boobaa sariya may na la ko. waaye aara la koy tere ndax day yàqu bokk. te sariya yàq taxu koo jóg. sariya defar moo ko tax a jóg. Mhm. diine yak ko taxu ko jóg mhm. ndax dina ne diinu mabniun ala naqli mhm. diine dañ ko tabax ci tukhal tukhal moy li fi nekkon ñëf ya ngok ba ci kanam wallahi sha allah barakallah fik ñepp contane nan sha allah sëñ abdullahi nga am loonu yekatil tuuti kon man ngeen no top si 88 nu ubi 88 628 32 32. tay no am fi gan gu mag sha allah eh, Serigne pap joxane inspecteur fa tabarakallah mu nuy wettali si émission Wadduha man ngeen noo topp si 88 628 32 32 foog naa dugg bi am na solo laay biir bi am na solo si nu ñuy delloo see cosaan ak nu ñuy gën a eh, yaree tamit fa tabaarakalla am na solo macha allah eh, mbégte gu ëpp moo tax tey samay kàddu xaw a damm <laughs> sëñ nga am loo nu yëkkatil tuuti rek nu ngi si émission Wadduha mm-hmm. ak seen mbokk Alxaaji Modou Cissé tey Serigne Pape Joxaane di nuyu wettali mën ngeen noo topp si 88 628 32 32 allah papa. adoon <laughs> ah, la. ka seeni baay baasin fa yaasin gumbay xele yi sax ñoom day ya ngay yaasin kooka mooy muhammadu rasulullah